mbokk yi Saint-Valentin ci weer bii la le 14 la tey Afrique yëpp ñu ngi koy feetu rawat na Sénégal mooy feetu njaalokat yi Saint-Valentin li muy tekki boo ko bëggee gàttal ba abrégé ko ba nit ki dégg ko neel mooy feetu njaalokat parce que cosaanam ci loolu la boobu Valentin la tuddoon moo doon labbe bi gënoon a mag ci dëkk ba mu nekkoon ca tugal dañu ñoom duñ jegeñ jigéen ndax dem nañ ba Jean Paul II daf leen doon tinul ne di leen gàcceel église li Jean Paul II def na ko Benoît XVI def na ko ne yéen cardinaux yéen a ngi tilimal christianisme li ngeen doon tere yëpp bàyyi leen ci dara li àddina bi yëpp yëg nañ moo tax amul làq-làq Jean Paul II wax na li ma dégg ko waa XVI wax na li ma dégg ko nee na li ngeen di woote ci église yi ak li am du benn bàyyi leen caay-caay moom làbbe boobu nag di Saint-Valentin ndeke bu jiite woon jàngu bi ba ñu wàcc rek moom mu daal di yëg miir bi daal di cipéeru ci gënnaaw benn jongo mu ngi foofu mu dem di mbalaan foofu la ba kooku ëmb ne élimaan bi moo ëmbloo xale bi ci dëkk bi élimaanu église bi wala élimaanu cathédrale bi wala ki jiite joses bi moo ëmbloo ni ci dëkk bi mu ragal bés bu lii feeñee gàcce la pour moom torox na yàqule na nitu diinaam wonneeku na ndekk li mu doon feeñal danañ xam ne kii naa fekk la la mu doon feeñal ci jàngu ba ak li mu doon dund du benn booba jamonoom duñu nangu soldaar yu ndaw yi am jabar foog nga doon officier waaye boo ne officier bu ndaw doo takk jabar ndax dañuy ragal boo demee guerre nga dee Euh, veuve yi bëri ci dëkk bi ak jirim yi orphelin yi bëri fi état bi du leen mën a yor mendicité am dëkk bi yàqu boo nekkee officier comme yow doo dem ci front bi wala boo ci demee du bëri ñooñu la ñuy may ñu takk jabar officier waaye sous-officier officier yu ndaw yi duñ takk jabar ay caporal ay caporal chef ay sergent ay sergent chef adjudant adjudant chef ñooñu duñu leen doon may ñu teel a takk jabar nañ bàyyi ba nekk ci officier ñu toog ko takk jabar ngir booba guerre dafa bëri biir Europe te seen dee bu bëree ñoom soldat yi ñu bàyyi ay jabar ak seeni doom fii dëkk bi réglé ko du yomb moom ba mu xamee ne ëmbaloo na nit ci dëkk bi mu rewel tolloo militaire yi mu ne leen le 14 février bi kenn ku ne na nga seet jigéen bu la neex ci dëkk bi tey église may na la demal fanaani foofu am na kilifa yoon lu ñu digle nit ñi def mm, ndax li ngëm gi ak wóolute bi def ngi ñu fees saal baa ngi ñu fees teew bu ma naan ko xaqataay rek déen fekk la fi ñëppay xaqataay ah, parce que ngëm bi la ak wóolu bi la ngëm bi la ak wóolu gi la bu la nit xasee gëm wóolu la loo ko wax mu def ko koo xam ne yaa jiite jàngu bi nga ne militaire yi bésu tey bi euh, may naa leen ko kenn ku nekk seetal sa coro ci dëkk bi wala kenn ku ne na wàcc jékki bu kenn terew sa morom eh, tey bésu yàlla la dem leen ngeen mbaraani dara nekku ci militaire yëpp daal di wàcc ci dëkk bi xale yu jigéen ñi kenn terewul boppam ci benn militaire militaire itam ku ñu gis la ànd ak moom dëkk yëpp daal di ëmbandoo benn ñoom moom musibaam daal di làqatu noo mën a naanee lu weex li di ko gën a weex moo tax dégg nañu wala. Hmm. waaye yow noo def benn naan lu weex li li ko gën a weex moo tax nga naan ko ñu laa ki ne ni weex na waaye sibiru moo ko gën a weex kon nag boo sibiroo foog nga naan yow ak yow waaw benn mbon ci moom ak mbon yi ñëpp mu daal di làq mbonam moom kon cosaan bi de lii moo andi Saint-Valentin ñu naan mooy feete amoureuse yi déedéet feetu njaalokat yi la bu bés boobu jotee ku ko feetu rek xamal ne am nga bàkkaati kunjaaw bu feet bi dikkee ñu jënd ay carte postale nga yónni jënd ay mbubb noir noir rouge yónni jënd ay yoon yónni kon yaa ngi def ak solidarité njaalokat yi teel ne fu ñu leen bindal benn ñu la benn mm-hmm. bindal la benn fu ñu leen bindal fukk ñu bindal la fukk te tey benn catholique defu ko déedéet ñi koy def mooy julli di ay Mouhamed ay Moustapha ay Mourtaba ay Mourtada ay Ali ay Ousmane ay doomi julli ñee koy def ay Fatima ay Zeynab ñooy def li ak ñàkk fulla bi ci nekk li mu yàq suñu économique daaw dong dix milliards tubaab yi jële nañ ko Afrique yóbbu Europe te ñu ko jëlee ci Saint-Valentin dix milliards dix ci robb yi jaay sa Afrique nga jënd dem may ko sa euh, sa nga jënd fleur bi dem jox ko sa coro nga jënd carte postale bi dem jox ko sa jànq nga jënd chocolat bi dem yóbbul ko ki ngay mbaraan tubaab yi jaay nañ ci dix milliards yóbbu ko Europe chocolat bi nga ko jox lu mu ko jëriñ carte postale boobu nga bind rek bëgg naa la lu mu ko jëriñ ñu jaay la yii carte cinq mille francs yii carte cinquante mille francs ñu ne kenn ku nekk na gën a bëggee sa ndaw sa carte noonu lay gën a chéré kayit kese de ñu bind def ci benn fleur bu xonq rek euh, bind ci ay baatu tubaab euh, je nangam je nangam xam ngeen li ma bëgg nga jënd benn carte cinq mille francs wala nga jënd benn carte cinquante mille francs ñii dañ dem bay jënd benn carte cent mille francs jaay nañ ci dix milliards alal googu ñu delloo ko ñun ba léegi ñu ngi ci biir néegu ñax yi ba léegi ñu ngi naan ci teen di naanaal saw mbort yi ba léegi hôpital dañuy dem du ñu mën a faju ba léegi daara yi ñu ngi yalwaan ba léegi enseignant yaa ngi grève ngir fayuñu leen ba léegi élève yaa ngi gëraw amuñu ay laboratoire amuñu ay bourse dix milliards yooyu Afrique jaay na ko tubaab yi delloo ko seeni doom ñu dëkkee di tabax ay gratte-ciel di tabax ay laboratoire seen doom même booy chemin dañ lay fay Europe waaw ci ay mbiru caaxaan doom nañu tuub bàyyi loolu bu bés boobu ñëwee musiciens yi dañ ciy profité waaye kallaa innal insaan la yadra an raw ustarna inna illaa rabbaka yow miy dajale ay nit di def ay concert yow miy dajale ay nit ay grand théâtre ay Daniel Sorano ngir sa poos na fees bés a ngi ñëw danañ la dugal ci biir morgue bi néew sa kaw néew sa suuf néew sa ndeyjoor néew sa càmmoñ parce que doon nga néew tey néew yi nga doon daw tey ci ñooñ nga bokk ki la doon dóoral guitare bi dootoo ko gis kii yoroon temba bi dootoo ko gis ki yoroon saxophone bi dootoo ko gis ki yoroon clarinette bi dootoo ko gis ki yoroon guitare basse bi dootoo ko gis yaa ngi tëdd ci biir morgue bi tey ñépp fanaan seen kër yaa ngi fanaan ci biir néew yi li nga doon tëb ci grand théâtre bi tëbal tey ñi la doon tàccu tey dañoo sarano nañ la tàccu tey mm-hmm. tey kenn faal dañoo ne koor bi mm-hmm. buñ lay suul sax say àndandoo dañuy jël ay mouchoir teg seen bakkan mm-hmm. ngir sa xet bi la topp ngir poussière biy jóge sa biir bàmmeel kallaa jàjjul kallaa dellul ci yàlla kallaa fàttalekul ba ñuy bës sa biir cabinet bi di génn balaa ñu lay defaree càngaay ngay yàq càngaay ba seetal ki lay sang mi ngi bës sa naq ngir saw bi génn seetal ñu ngi teg ay witteen ci say toogekaay dugal ay witteen sa faxi bakkan balaa ñendax yi di génn ndax sa bopp bi mënatul téye dara yàqu na yuur bi mu ngi sotteeku jël ay witteen dugal sa bët ngir amatu sidit bu téye laas yi mi ngi génn jël huitaine dugal sa gémmiñ ba mu fees tepp ngir nicotine bi mu ngi génn yeew sa loxo yeew sa tànk dootoo dara Abdoulaye Kassé mhm.